tey président de la république moom moo jox décoration ay liggéeykat ñi am euh, médaille grand or ñi am or ñi am merveille ñooñu nag lañ dajale woon fii tey di leen jox li nga xam ne moom mooy euh, distinction yooyu nga xam ne kilifa réew mi moo leen ko jox muy seen ñaq loolu nag ñun maanaam ngànnaay la jàmm jooju pour que ñu mën dem fi nga xam ne foofu lañ bëgg a mooy fexe autorail yi teguwaat ci raay bi pour que ñu continuer daw niñ ko doon defee bu njëkk ba pour loolu nag yéen a ngi ci teg seet bët train yaa ngi nii defar nañ leen boo ñu baax te train boo ci teg ci raay bi dina daw li ci des mooy dafa taxawoon bu yàgg ndax liggéey bi ñu doon def ci teer bi kon tey fi ñu toll di ci liggéey ak kilifa yi mooy fexe ba train yi gaare fi tey muy yu bari ñu tegaat leen ci raay bi yóbbu leen Thiès nga xamné fofu aussi ñu ngi waxtaan ak suñuy partenaire CFS tay sax am nañ réunion pour que à partir de Thiès ñu commencé ndank ndank di daw ci biir réew mi dinañ dem Tivaouane dinañ dem Touba après ndank ndank xeyna fi ba weer yi wala deun ñu yegg Tamba. démarrage progressif la tay li ñu war ñëk def moy comme ni mako waxé ci at mi 2021 moy joggé Tivaouane ñëw Thiès joggé Thiès ñëw Jamñaaju joge Touba ñew ties joge ties ñew jam naajo ndax jam ñaajo li tax mu am solo moy terre bi fofu lay terre te jam ñaajo kenn dëkkagu fa kon ñun dong ñoo mëna jël ay nit ay client ñu joge ci biir réew mi ñu indi leen ba jam ñu mëna dugg ci terre bi fu dem biir nakar kon loolu moy woné importance waxuma la sax li ñuy dimbale askan wi way importance GTS pour que terre bi mëna def liggéeyam donc ci tank yoy lañu nek léegi nag mu ngi taxaw pour que daal wax dëgg yàlla train yi mën a génn ndax train yi moom liggéeykat yi ñoom taxaw nañ def nañ ci liñ ci war a def bu génnee incha allah dina mën a daw te du am benn jafe-jafe pour que sénégalais yi mën di tukki jaaykat yi mën di jaay ci gaar yi bu ko defee loolu yëpp day yokk